am ngeen ne plateau bi tey soppeeku na ñu am benn partenaire sponsor di Papino Création gis ngeen moo def lii ci Coupe d'Afrique des Nations bi solal ñii di Sénégal sama équipe bi yëpp ak ñi nga xam ñoom ñooy samay invité tey Papino Création félicitations gis nañu li ngay def on vous encourage euh, ci li nga xam yaa ngi koy def pour les Lions du Sénégal ak i tamit ci Coupe d'Afrique des nation léegi léegi dina leen jox seen adress fi ngi leen mën a am ak itamit seen numéro de téléphone Papino Création tey maa ngi ñaari invité euh, kenn ki di wuyoo Alioune Badara Diop Campos ancien gardien de but euh, Jeanne d'Arc de Dakar euh, DUC Euh, dem na tamit à l'extérieur wala gannaaw tamit bu mu jaaree AS Yogo nekkoon na ca Maroc ASC bu Jat bu province Khouribga nekkoon nag euh, le gardien de but Oumar Diallo foofu ca Maroc bu Khouribga ñoom ñaar ñoo dëkkoon mi ngi nii tey moo fi teew keneen kii moom mii ngeen ko chaque match mi ngi fi Babacar Diouf di Mbaye Diouf euh, nekkoon entraîneur GFC Guédiawaye football club jaar na Jaraaf Jeanne d'Arc bu Dakar génn na tamit à l'extérieur nekk ci centre de formation bu Kaana Kaana ñu koy nuyu au passage même tamit aline ah, Alioune Badara Diouf euh, Diop car Campos mi ngi yor centre de formation des gardiens de but Campos GFGB ah. CFGB moom itamit entraîneur la ñoom dañuy nekk ñoo xaman ni dañuy defar produit produit ñi nga xaman tey ñooy dem extérieur di toj les championnats européens. wala boog championnat bu mu mënti doon dëkk bu mu mënti doon ñii ñoo leen di defar ah kon ñii tamit war nañ leen di gëstu tax tamit ay footballeur lañu euh, reconvertir u ubbi ay centre de formation di defar euh, joueurs yi nga xam ne tey ku ci nekk tey ci Sénégal parent parent bu nekk bëgg nga sa doom nekk gardien de but international wala mu nekk joueur international loolu la ñëpp di ñaan comme à l'image de Crépin Sadio Mané et autres damay bàyyi kon Euh, coach damay tey dañuy dalal Alioune Badara Alioune Badara Diop Campos ma bàyyi la nga nuyoo ak ñu ñuy seetaan ñu ñëw ci match bi ci tey la tey bi. bon Pape hmm, hmm. sama coach Mbaye Diop. bon di wax ne di wax tamit euh, ne euh, lii dafa am solo. Hmm. ndax li tax mu am solo mooy que. nit euh, boo ko woowee ci li nga xam ne mooy passion mhm. da ciy sawar a ñëw mhm. euh, liñ ciy wax rek mooy que dañuy dugg ci débat bi mhm. euh, dañuy dugg ci débat bi rapidement juste nga présentel ma centre bi centre bi kañ ngeen ko créé yooyu centre bi aussi tamit maa nga xam ne sama staff comme sama directeur centre bi Madia Diop course yi nga xam ne ay ñoom bétis yi nga xam ne ñëpp xam nañ. bétis yi mhm, bétis yi. Mhm. di remercier Mbaye Mbaye tamit euh, suma benn euh, frère la boo xam ne ci mhm. bi ñu ngi ko door au niveau du SICAP si euh, sama création. maa ko créé presque en 2015. mais daan naa rampe. mais aussi tamit bi ñu amee appui. dañoo am appui koo xam ne. daf ñu jàppale ci centre bi. pour ñu mën a dem ci kanam. muy. Ababacar Sadikh Bèye le xam ne tey mhm. dafa sonn ci euh, ci équipe nationale mhm. nekk sponsor équipe nationale di jàppale équipe nationale ci bépp mhm. léegi depuis 2015 liggéey ñun tamit aussi ci ñëw léegi ci technique bi ñu réglé léegi micro bi alors euh, ñu nuyu ak euh, Babacar Diouf Mbaye Diouf coach GFC nekkoon ko jaar GIA tukki dem bitim réew ñi ñëpp dañu xam football ay expert la ñu du ay coomo ñoo toog ci plateau bi mbay ma bàyyi la nga nuyoo mbokk ah. Sénégal yi di leen mm-hmm. ziara di leen euh, jaajëfal euh, ñuy déglu mm-hmm. euh, di ñaan yàlla Sénégal am ndam di fàttali rek tey match bi mm-hmm. di fàttaliku suñu ancien joueurs yi ku mel ni Jules François Bocandé at sama grand sama copain ndem si yàlla si Baba Touré Baba Touré sama xarit man tamit sama copain ndeysaan ku baax ngi noonu Baba Touré jot nañu def man moom jot nañu daan di waxtaan euh, no kooku moom beneen affaire la Baba Touré ah ñoom ñëpp xam naa tamit tey Jules François Bocandé fi mu nekk tey bëgg na parce que lii nekk na lu mu yàgg bëgg ci équipe nationale bu Sénégal yàgg na ci xeexa ah euh, ku ci mel ni ki tey El Hadj Ousseynou bi fi nekk tamit am na mbégte ak génération 2002 bi ñoom Henri ah, ñoom ñëpp Salif Diaw ñoom ñëpp am nañu contentement mais tey li ñuy ñaan mooy qualification finale Sénégal yëpp ku ci nekk. yàlla euh, rek moo xam gémmiñ buy nangu yàlla moo xam ñaan guy nangu foo leen nekk tàllal leen seen loxo ngeen ñaanal équipe bi parce que tunisiens yi dañu ñoo yeb entraîneur bi fin bi yor Tunisie daf ñoo yeb di Alain Giresse kon tey Aliou bi nga xam ne moo nekkoon joueur Alain Giresse nekk entraîneur am en pleine compétition ñu pare mu bàyyi ko fi mu dem ñibbi moom mu dem France tey Aliou Cissé moo war a jàkkaarlook moom combat la si ñoom ñaar comme la ci biir terrain bi alors euh, li may njëkk a wax Mbaye balaa micro bi pare na bu bu bu Campos pare rek ah mbay dañuy ñëw ci sujet bi 18 rencontres Sénégal li ko Tunisie dóor bëri na si je ne me trompe pas bi tey lan mooy clé wu match bi euh, am na qualification pour la finale am na match dans la match. waaw tey ba mu créé mooy ne Sénégal tey moo gën a soxla euh, tey ndam li que Tunisie. Mm. parce que bu ñu xool ci valeur jour équipe nationale Sénégal ñun ñoo leen raw parce que ñooy première sur le plan africain. Mm. donc ñu ñoo nekk seen kanam. même mm. fekkee ñoom dañoo nekk ay mondialistes dóor ñu dóor nag ñu doon gagné bu njëkk ba. peut-être football Sénégal foofu la tolloon. Mm. mais tey war am benn xar-xaru kanam ak benn stade bu ñu toll. Mm-hmm. kon tey nag réalité boobu. histoire la quoi dañ mais tey nag ñu war a enterrer loolu ci histoire football en Sénégal et la Tunisie. Mm. génération ba woon ak génération bi tey bokkul tey équipe bi moo gën a mûr euh, sur le plan international. am nañu waat beneen niveau am nañu beneen tour mm-hmm. ça veut que loolu tey mën na nekk loo xamante ni en plus pour le Sénégal.

ah d'accord voilà boo ko koy wax ni ok c'était en 2000 Kasperzak moom moo abandonné en pleine en pleine compétition waaw. Alain Giresse abandonné wu. non abandonné c'est Kas c'est Kasperzak. ñu pare ñu pare Coupe d'Afrique mu dem yoonam. non c'est Kasperzak ok ok waaw waaw foofu kon dañoo juum rectification bu leer la euh, kon gaa yi foofu noonu rectification bu leer la damaa juum sama mémoire dafa coupé alors tey hmm, bu ñuy wax tey si si match Sénégal euh, Tunisie. Euh, coach dégg nga ko mbay Diouf nee na euh, tey peut-être mën nañu wax ne Sénégal màgg na ci mentalité màgg na ci côté expérience ak niveau bi ñu am tey euh, Tunisie ba woon ak Sénégal ba woon doonul benn tey noo koy jàngate bon damay rejoindre li coach mbay Diouf wax. Mm-hmm. il a parfaitement raison. tu sais pourquoi il a parfaitement raison parce mm-hmm. que euh, actuellement. Mm-hmm. le Sénégal est plus riche individuellement. qu'on se dit la vérité. le Sénégal est plus riche individuellement ñun amatuñu complexe boobu noonu. jours yi njëkk yi mu waxoon. ah valeur yooyu noonu actuellement. ah boo xoolee équipe nationale par exemple Sadio Mané. Euh, Ligue des champions ñoom ñoo ko jël. Euh, boo xoolee ñun valeur yi nga xam ne moom la jours yi ne. jours yi am ah, en euh, et puis fi fi yi di football. actuellement amatuñu complexe. pour mën a abattre Tunisie. Euh, te man li ma gis ci match bi. mooy que match bi bu fekkee ni ouverture am na rek Sénégal dina jouer match boo xam ne tey. joué wu ko benn yoon si kàddu le plan du jeu voilà. du jeu bien sûr parce que teg bal bi football parce que ñun euh, boo xoolee euh, Sénégal Sénégal buy football. Hmm. boo tëjee boo tëjee boo tëjee jeu bi. Hmm. on des on a des problèmes. Hmm. parce que pourquoi on a des problèmes parce que. bu ñuy def bu ñuy def tout le temps dañuy jéem a créer ay occasion mm-hmm. mais des fois bu ñu jóg équipe bi nga équipe boo xam ne par exemple day ñëw comme naar yi mm-hmm. naar yi dañuy seen football dafa ouvert mm-hmm. kon donc ñun tamit suñu football day ubbeeku ci biir ubbeeku boobu noonu nag ñun euh, si la ñu mën a amee plus que euh, jeu bu fermé wu. Euh, coach looy wax ci loolu jeu bi bu ubbeekoo xëy na ci la ñuy gën a mën a wane suñu football wala boog xëy na ci la ñuy gën a amee chance match boobu. waaw li ci Tunisie dañoo nekk Tunisie dañoo boo xam ne dañoo am culture tactique. yéen nag xam ngeen naar yi yow. waaw dañoo am culture dem nga dem nga Arabie Saoudi kii dem na ñëw léegi ci footballu naar yi. dañoo am euh, culture tactique. Hmm. donc même bu fekkee ñoom dañoo dem euh, mondial bi di ñëw. Hmm. Euh, seen équipe bi tey ñoom dañuy am bloc bu compact. Hmm. dañu am bloc bu contact dañuy resserrer les lignes. mais ñoom souvent dañoo am benn problème boo xam ne dafa feeñ seen équipe. seen défenseur dañoo costo ñoom gaawuñu. tey Sénégal su ñu leen bëggee gagné il faut que ñun suñu joueurs yi ñu jouer suñu vivacité joueur comme ku mel ni Sadio. comme bu fekkee Ismaël fekkee démarré na. mala euh, Mbaye. mais lan lañ war a éviter. am na seen benn joueur bu nekk si milieu terrain bu tudd Saasi. Saasi heure bu jotee bal bi il faut que ñu kenn dem di ko empêcher di ko cadrer tey Sénégal xam nga la ñu war a def nii. Mm. tey comme la défense zone. Mm. bu nga xamante ne dañuy remplir condition yëpp. ne couverture bi harcèlement bi pressing bi. Mhm. parce que saa si il est un joueur xam ne dafa affiner ay intervalle parce que mhm. dem damaa leen seetaan ba fa jag ñoom dafa bëgg joueur boo xam ne dafa ay espace. Mhm. pour mu jouer ci intervalle pour trouver. caserie. caserie dafa nekk joueur boo xam ne kenn ko bàyyi un contre un parce que bu bu dribblé ba mu am benn espace rek day enchaîner. day enchaîner parce que ñoom seen action yi noonu lañ koy terminer. tey sa Aliou tey. comme nag gis naa ko contre euh, euh, match bi passé. contre euh, beneen gis naa ko ñu def ko peut-être réussir dañoo manqué ay occasion mm-hmm. mais contre Ouganda def nañ ko mu réussir parce que mm-hmm. moom mooy suñu arme bu nga xamante ni mm-hmm. moom moo gën a procès parce que tunisien yi tey il faut que ñu suñu gën a serré ñu jouer sañ sorte de balle parce que sañ sorte de balle gis naa ne ñoom ni si ba nga xam bu ñu récupéré balle automatiquement suñu transition dafay gaaw ñun tamit ñu xañ leen transition euh, wax nga ko euh, Campos dem nga dem nekk nga fa yow Ba yenn club yi ak Dubaï footballu naar yi tey naar yee ñu gën a sonal ci looy gis. ci mhm. football. Uh-huh. Uh, course mu ngi koy wax léegi. Mhm. naar yi dañoo am vivacité. Mhm. naar yi dañoo gaaw. dañoo am duñu gaaw sonn te aussi tamit. si ñoom boo xoolee naar yi si li ñuy gën a kii euh, gën a sonal. aussi am nañu benn force boo xam ne. ñoom dañoo mën a tricher si biir match. tricher. ñun nag buñ leen toppee ci lancer googu noonu. on va passer à côté. mais lenn kese kese la ñu mën a def pour xoolal fekk si leen ñoom si seen mën si seen mënin. Mm-hmm. ndax naar franchement parler dafa am vivacité dafa am rapidité. Mm-hmm. kon donc football africain. Mm-hmm. ak football arabe c'est diamétralement opposé. surtout avec euh, tricherie bi tout ça. tricherie bi surtout. surtout ñoom wax nañu bañ a dugg si jeu naar yi. parce que naar loolu kese la lay bu jaaxlee rek day indi jeu. coach loolu du doon loo xamante tamit dina nekk pression parce que pression la tamit ci sénégalais waxuma sax les joueurs mais sénégalais li ñuy wax toujours rek naar dafa gaaw dañu am vivacité gaaw ñu sonn et puis aussi euh, tricherie bi loolu tamit euh, mën na jouer dans dans le match. waaw mën na jouer dans le match benn côté qu'on soit beaucoup plus vigilant. Mm. parce que mooy tey nii même bu fekkee dañuy tricher avec la VAR donc tricherie bi dafay wàññeeku. Mm. dafay wàññeeku lu muy wax nag seen vivacité parce que mooy pour ñu xañ leen ko. Mm. il faut que ñuy dem ci porteur ballon bi. Hmm. di ko empêcher ñu progresser. Hmm, et sur les vingt cinq à trente mètres. ñu éviter ñoom euh, gars yi disponible parce que dañoo am suñu bot yi dafa dañoo am euh, force de frappe yu am solo. surtout casier et sur les balles arrêtées ils sont dangereux. Hmm. ba pare sañu jour dañoo am taille mag. dañoo njool. ay njool lañ. yooyu mun nañ ko bàyyi xam mais lu ma yaakaar nag Sénégal peut-être moom dañoo am benn pont at ñun suñu jour. at valeur yu ñu am. tey bu ñu empêché naar ñu def suñu relance pendant mm-hmm. dix à quinze minutes. Mm-hmm. fexe ñu dutal leen ba ñu jël seen bañ a jël seen repère ci match bi au moins ñu essayer leen marquer un but pour qu'il puisse libérer des espaces. balaa may ñëw ci ci ci onze de départ équipe nationale bu Sénégal gis naa ko dama leen di laaj benn benn mbir beneen match ci biir match euh, est-ce que mën na nekk match coaching entre les coachs Aliou Cissé Alain Giresse. Alain Alain bi maitriser bu baax a baax le football aussi il maîtrise le football sénégalais. bien sûr parce que. Hmm. jaar na fi am na hmm. lu fi jàng. Hmm. Euh, jàng na suñu yeneen euh, dëkk yi mais loolu moo xam ni dafa am avantage mu am mooy seen joueurs yi mooy joueurs tunisien yi. peut-être suñu si bëri ay expérience ci suñuy joué ay Zamalek. championnat ñuy joué Afrique presque ñuy joué am nañ niveau bi nag. mais dañu nekk ay joueurs yi nga xamante ni. Euh, sont des gagneurs. sont des gagneurs fraîcheur physique dafay joué mais dinañ essayé ñoom. pour jéem a gérer suñu mentalité joueur yi. Mm. surtout Alain Giresse. coach looy wax ci loolu Alain Giresse Aliou Cissé Alain Giresse bi xam équipe bi xam football africain bi nee na woon sax souhaité wul woon dajeeg Sénégal mais loolu souhaité wul woon dajeeg Sénégal saa veut dire que amoon na benn tiitaange ci équipe bu Sénégal wala. moom moom bu ko moom bu sañoon. Mm. du am Sénégal. Mm-hmm. Alain boppam bu sañoon du am Sénégal. Mm. parce que actuellement. Sénégal képp ku ko am da nga koy ragal. Mm-hmm. kooku c'est sûr. Mm-hmm. parce que li ñu indi la. Mm-hmm. mais lenn nag am na. xam xam équipe. nit boo jaaree ci dëkk yor équipe rek da ngay xam équipe. kooku c'est sûr. ñu ñëw ñu ñëw ci onze départ yi parce que euh, dans onze minutes euh, ñu démarrer match bi parce que war nañu dem. xool présentation des équipes ak hymne bi euh, tey Sénégal Alfred Gomis toujours moo nekk ci camp yi ci axe bi yaa Koulibaly et Cheikh Kouyaté. Euh, même défense bi demo bi départoon match bi pass bi mooy ñëw yaa Gassama et Sabali euh, ci flanc yi Gana Gueye CV Pape Alioune Ndiaye au milieu ñaa Mané Crépin jël place u Diao Baldé Keita dafa mel ni ki li nga doon wax sànq ci jeu bi. jeu bi ñuy déebal di football Crépin. je vois que ne bon mën na créer beaucoup de difficultés aux aux parce que vivacité dafay perturber défense tunisienne bi. voilà moom nga doon wax sànq. voilà mhm. vivacité parce que il faut que ñu am joueur yu vivace. Mhm. moom am mën na ko. Mhm. te mën na yóbbu bal bi ci kanam. bu boobaa nag on va retrouver Sadio at mbay mooy efficacité bu mooy wax. xam nga match bi tey yëpp loolu daf ciy jouer. contexte mooy il faut qu'on soit beaucoup plus waaw. Ah. Mhm. alors bu noo gisee ñaa ñaa ba tey mi ngi départ. toujours c' est de de de de. c' est un très grand attaquant. Mhm. Ah, c' le Giroud sénégalais. Mhm. looy wax si coach si kii bi. Euh, ñaa damay commencé si ñaa. ñaa il pèse lourd. il pèse lourd. il pèse lourd moo tax mu si buru temps il pèse lourd parce que parce que il se donne. je t'assure il se donne il se donne à fond. xam nga nekkul attaquant que da ngay dugal rek. Mm-hmm. Euh, nekkoo si match bi. loolu du attaquant. non non mm-hmm. c' est pas ça. attaquant koo xam ne day def euh, day peser si défense adverse. bien mm-hmm. sûr te te moom day peser. moom wax dëgg fa yàlla day dalante. Euh, su may damay ñëw ci Crépin. Crépin yaakaar Crépin tey. tey bu ñu gañee match bi tey moom. daf ci am part. daf ci am part bu rëy. parce que Krépin quoi qu'on dise il a été l'homme du match. match moom la ñu mhm. joxe woon homme du match. Mhm. kon tey dañ ko dañ ko joxaat confiance. pour mu mhm. ñëw pourquoi dañ ko joxaat confiance parce que Diao Baldé. match bi nii peut-être que. je ne sais pas euh, lan. dafa xawoon moyen quoi peut-être bon euh, euh, fi ñu ko doon footballé option bi ñu tegoon ça ne marchait pas. actuellement boo xoolee Krépin am na jeu. am na vivacité comme li coach di wax léegi. Mm-hmm. am na vivacité am na rapidité. Mm-hmm. boo xoolee Krépin dafa sàcc tuuti ci Sadio Mané. Mm-hmm. quoi qu'on dise bu fekkee seetlu nga dafa sàcc tuuti. kon donc ñun loolu la ñu soxla pour gagner match bi. coach loo may wax ci Alfred Gomis euh, bii passé de. moins cinq mu taal suñu camp. tey lan lan lan lan lan nga war a gis ci moom. Euh, gis nga détermination laa war a gis ci moom. parce que aussi gis nga gis nga l'erreur est humain mm-hmm. dëgg la mm-hmm. mais quoi qu'on dise Alfred c'est un très très grand gardien mm-hmm. très grand gardien man dama ko yàgg suivre euh, avant muy ñëw équipe nationale dama leen doon wax ni kii bu góolu équipe nationale kenn dootul góolu te gëm naa ne ne euh, attaque bi ñu teg tey bu ñu amee à cinquante pour cent soixante pour cent moom aussi tamit day gagné match bi euh, si si wala boog défense bi Gassama et Sabali ñoom ñaar nekk ci flanc bi les euh, les naar yi dañu dañu gaaw tey ba ci ba lan la ñu war a fubalee tey Sabali war na di gën mën a génn lu bëri parce que booy xool euh, ci flanc am lañuy ñuy ëpp lu ñuy fubalee muy génn. Mm-hmm. waaw parce que mooy li ñuy wax nii xam nga dañu am suñu côté point côté fort. Mm-hmm. suñu point fort foofu la nekk mooy côté gauche bi. Mm-hmm. léegi nag pour tey. il faut que ñu koy alterner. Mhm. di jouer souvent à gauche souvent ñu basculer à droite. Mhm. voilà ba pare dañoo soxla ay jeux combinés à deux. Mhm. à trois yu rapide sur les côtés. mais si côté gauche bi war na am benn combinaison bu fa war a am muy sabali ak keneen bu bu mënee dem am koo xamante ni dina mën a ko remplacer. waaw parce que naar yi dañu gaaw bu ñu amee contre bu ñu jaaree foofu mooy loolu. waaw foofu. foofu ba ñu wax naan la couverture mutuelle parce que benn axe central mooy axe central gauche bi bu fay jouer mooy muy dellu si. nekk foofu nekk couverture bi nga xam ne défense day nekk à 3. Mhm. pour en cas bu gasama génnee. Mhm. pour mun a def couverture moom tamit. Mhm. alors joueurs yu dangereux yi ci tunisiens yi ñan lañ ñan lañ war a moytu ak nan lañ leen war a moytoo coach yu. waaw euh, Saasi Msakni ni ak Kazri. ñett ñooñu. ñeent. ñeent waaw. nan lañ war moytoo. parce que. ban ban ban kii la euh, Aliou Cissé war a teg tey. xam nga mooy nga koy wax sànq ci saa si. tey nag technique dana feeñ de. <laughs> bien sûr ah, tey la ñuy xam ne Aliou Cissé technique la wala. non parce que ñëpp loolu la ñuy wax. mais match yi passé yëpp non chapeau à Aliou mais tey moom dafa am benn entraîneur bu mag bu ñuy wax Arrigo Sacchi. Arrigo Sacchi moo la défense zone. Mm. mu leen teg mm. a mm. dem restaurant gars yi ne ko mais yaa ngi da dem restaurant. war a jouer ak Maradona. nan ngay suba pour marquer Maradona soxna si moo ko tontu mu ne suba bu ñuy yeewu dañuy def défense zone. zone empêcher joueurs yi. Hmm. ñu def lu ñu war a def parce que suñ ko bàyyee seul moo kenn mun na dribbler te balaa keneen di ñëw bu couverture bi yéexee. Hmm. resserrement yi yéex dafay enchaîner frappe. du sonn de. voilà kooku rek gaaw na de. est kooku moom c'est sûr kooku c'est sûr Casemiro moom il ko may benn intervalle bu ñu suñu bal intervalle ko may parce que loolu lay gis. bu hmm. gisee intervalle dafay jouer ballon bi. moo nekk ci milieu terrain donc il faut que am. kuy daw ci moom son principal rôle franchement parler mm. euh, c'est d'attaquer mm-hmm. waaw attaquer à fond mm-hmm. franchement parler man Sadio Mané gisuma ko ci loo xam ne lu dul ay contre mm-hmm. waaw je ñu jeu ci moom ñu jeu ci ay contre yoo xam ne tey jii ni am na appui am na appui boo xam ne yor nañu ñaari xale yoo xam ne tey jii nii poste yi ñoom ñaar war nañu mën a dem. ay war nañu mën a dem benn tambour battant boo xam ne. Mm. bu ñu ko defee rek. dinañ am dara. Mm. mais bu mu dóor penalty bu amee penalty bu mu ko dóor. non kooku moom moom si boppam non moom si boppam sax xalaatu ko. foofu dama ci ñëw dama ñëw man tey ah, d'accord non non non man non franchement parler xam nga. Mm. lu tax euh, man nangu ak moom. ah gis nga nit bu dara nekkee ci xelam. même bu ko mënee. bu taxawee. bu taxawee pour def ko. lu mu bon bon bon dina am benn track boo xam ne. Mm, mm. day diminuer voilà day des ci bopp bi. Mm, te actuellement. coach na bàyyi penalty bi rek coach. te yàlla non tey xam nga wax naa mais contexte yu ñu nekk mooy ne. coach coach tey dafa la jël responsable xam nga. may may si may bul <laughs> yi dañu lay mere de ñu ngi lay seetaan de. ñoo ko ñaan. te yàlla na tey signe indien bi tey. bu amee na vaincre tey signe tey bu ko deful tey ñu dem tiro bi tey ñaan ñu ko yàlla lañ lañuy def coach bu mu vaincre si indien ñeneen pour man on a d' autres on a d' autres penalty moom xoolal penalty full la kese la coach yow xam nga loolu. Ah. mooy te nag te nag je vous euh, je vous jii nii euh, man je vous que on a un bon gardien boo xam ne tey. man mi ko yàgg suivre. Mm. avant équipe nationale. bi muy door en Italie. Mhm. on a bon gardien boo xam ne tey ñaanum ñu yàlla yegg Seny Ndepina mais je sais que il fera une différence. dina def différence tey ah. Euh, dañuy changer gardien bi dafa bari. Ah, dañuy changer gardien lu bari. Ah. seen gardien dafa def ay bourde ñu changé ko génne benn match dugal gardien. kon gardien yi tane dafa tane nii. je ne sais pas qu'est-ce qui mhm. le plan mental je ne sais pas qu'est-ce qui mhm. foofu. Mhm. atu bu war a ñëw pour mën a la. léegi bu ne prip bu ne prip bu tegee bal bi ne prip coach lan la ñu war a fubal. on va les presser haut. yóbbu leen sañ zone. gis naa ne que même bu ñuy yéeg Madagascar. Hmm. benn équipe bi attaqué nekk en difficulté ñoom ils sont pas agressifs sur le hmm. marquage. xaw nag peut être réalité bu ñuy yéeg Madagascar. Hmm. ak bu ñuy yéeg Sénégal benn la mbala du benn. xaw ma tey xam nañ nangu loolu. ma la déglu ma wax la tuuti ci euh, ba euh, le deuxième gardien là. ça fait presque dix ans il est en équipe nationale. xam nga góol bu toogee ci banc doo ko xam. mais ñoom xam nañ ne xalal c'est moom penalty rôle la. gis nga le premier gardien la uh-huh. moom xale la mooy ki ñu remplacé woon match bi passé waaw waaw ah, la daan woon góolu parce mm. que seen capitaine bi seen gardien capitaine bi moo doon titulaire mm, mm. moom nekkatu fi mais le deuxième gardien il reste dans moom moom dafa des ci postam te ñoom xam nañu ay qualité moo tax changement moo tax bi ñu defee changement bi ñu gis euh, résultat bi mu def kon mbokk yi xam naa ñu ngi jëm euh, ci match bi 16 heures mooy cinq minutes na ñëpp ñaan jàddu leen course yi ñu nekk église ñaan leen ci ci jàngu yi na ñëpp ñaan kuy nekk sa biir kër di seetaan na nga def ci say ñaan ñu gagné premier mi-temps ñu dóor deux deuxième mi ñu dugal deux muy 4-0 match bi jeex ñu dem final. parce que dañ ko soxla ah. waaw xam nga tey jii euh, demi-finale coupe d'Afrique lañ nekk. Mm-hmm. joueur yi il doit être conscient. du mm-hmm. chaque jour ngay ñëw compétition nga nekk si condition de performance yi nga def ay performance ex ba demi-finale. Mm-hmm. tey nag. ils doivent écrire leur nom dans mmh. la phase de l'histoire du football sénégalais. C'est le moment. Voilà, c'est le moment. Mmh. Parce qu'on on les attend dans cette compétition pour qu'ils puissent prouver mm-hmm. euh, ce qu'ils ont dans les jambes. Mm-hmm. Parce qu'à faire de taille, euh, il faut être des Italiens pour battre, battre, cette équipe. Il faut être des Italiens. Alors, à tout à l'heure, quand euh, Campos m'a venu, quand Mbaye Diouf, à tout à l'heure, nous avons match. Merci à la technique nous del soir. Papino, euh, euh, Papino, Création, moi, def li je suis partenaire. J'ai à tout à